ñu bokk nit ku baax muy son excellence président Wally sekk mu am ci waaye boo am solo ma xam ci dara barki démb bi président Wally di tudd jaaga luñ fa lekk ci bañ ak jus moo ko fi indi muy as gor du jàpp di bàyyi du war lu tas yaakaar du fedd ko la jigéen ju am valeur ngi nii di jàmbaar di kat daan doole rek la jëmm ji xam Bamba jàppal fekk naa laa ku ne nga jàpp waaye jàppal jëmm ji jàppal jëmm ji ndax as gor la te mën na ci liggéey bi lu bari kon maa ngi la koy dénkaat te yàlla rek tax di nuyu Amina Saliou Amina ah, sociale di nuyu Ousmane ah le grand coordonnateur Toto Dieng ah suma nijaay suma xarit Alaaji Boga Mbaye sunu porte parole waaye Cheikh Etta Saay sama rakk ji maa ngi lay nuyu di la ñaanal sa jàmm yàgg yow lii lépp yow la yaa ñu xajal ci sa baay ba réew man cee xaj tey boo tëjoon bunt yi kenn du yegg si waaye bu bunt yëpp sama rakk ji yàlla sa jàmm yàgg. bisimilah. salaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. nee mi ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam. di leen sant di leen remercier di leen encourager. nee mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di remercier. tey sama xel dal na. président nee tey xelam dal na. parce que soo yëkkatee dara. ndax boo yëkkatee dara. xale yu góor yi jug. xale yu góor yi yu jigéen di jug. kii jóge fii kii jóge fee ngeen daje fi su ma gisee nii toogaay bi rafet damay xam ne li ñu nekk dëgg la dangay di ñaan nee ni ñu ko commencé nii nii ñu ko eggale ko si alhamdulilah yàlla ci alhamdulilah bu ñu tontu bu ñu tontu bu bu ñu saaga bu ñu saaga bu ñu histoire dans la discipline. nee na su àndeek dogal yàlla fi ñu bëgg yegg nañ fa yegg. bu àndee fi ñu bëgg yegg dañ fa yegg. loolu rek laa leen doon dénkaat. na ànd ak yar. ak teggin. ak teggin. ak civilisé. ak gëm suñu bopp. ndax ay ndaw lañ. te àdduna nag ndaw a koy defar. te ngeen jëf. jërë ngeen jëf. Eh, continuer seen événement à l'hôpital principal. continuer seen événement à Moi, je me présente. Je m'appelle Bamba Kamara. Euh, dama organiser benn vente privée 11 12 ma ne pourquoi pas balaa ñuy xuus ci vente bi ñu dimbali suñu moromu jigéen ñi nga xamante ni dañoo am feebar bi mu sonn lool ba seen loxo jotu seen ginnaaw ba mënuñu jàppale seen bopp pourquoi pas as bi ma ci am partage ko ak yéen yéen nga xam ne yéen a fi nekk. lépp yéen la ku ñëw yéen a fi faj yéen fi fekk yéen faj askan bi ma ñëwoon nag ànd ak sama groupe ñëwoon jébbal leen ko te di leen wax merci ci invitation bi nga ma accepté yomb na trop vraiment di leen wax merci en fait dama def euh, vente bi pour sargal bépp jigéen moo tax ma def tey taxawaay bi ñëw indi leen ma leen indil te ma def am euh, parrain aussi bu tudd Mamadou Yatassay ma am parrain aussi bu tudd Mamadou Yatassay ñu koy wax euh, borom Aquaterra moom tim mu jàpp ci mu ko defee parrain aussi mu accepté ko ma wax ko social bi mu bëgg def ma dinaa la ci dimbali ndax man social lay taxoon euh, fan yi ma ñëw fi laaj demande ngeen accepté ma ko vraiment merci kontaan naa am naa mbégte ma ñëw ngeen recevoir di daan daan la xel daal di mm-hmm. wane ni yéen ñu fi wàcc maanaam jar ngeen wóolu te dinañ ñaaxaat bu baax dinañ gën lu jàppale ñu jigéen ñi dinañ gën ñoo jàppale bu baax lii nag association boo xamante ni yemul fii maanaam bëgg nañ ko bu gën a yaatu chaque at bu ñu fi ngeen ñu fekk nañ fi yéen ñu fi njëkk fekk ñu fekk nañ ko suñu mu gën a merci beaucoup merci vraiment. ok. asalaamaaleykum. bon colonel leen jox suñu ci lu baax li ngeen di def yéen kenn mënu leen fay nee naa hôpital moom boo fi duggee ak sa feebar ñu faj la nga génn. loo fi joxe tam euh, xaalis la rek mais gratitude bi moo ëpp mm-hmm. man nag cancer je l'ai vécu avec ma mère euh, elle a eu le cancer du sein elle a été très bien soignée machallah ici à Dakar bon pas dans un hôpital la base mais dans une clinique elle a été suivie aussi par un professeur Kassé qui est qui est un de vos homologues je ça s'est très bien passé wax dëgg yàlla elle a elle a survécu à bon bien qu'on lui a retiré un sein mais elle est macha allah j'espère avec les échanges et tout tout tout la joie de vivre et puis loolu lay ñaanal aussi bépp jigéen boo xam ne yaa ngi feebar bi yal na yàlla teg loxo ba nu wér ci jàmm salaam comme tey ni ma gisee sama yaram bi la joie de vivre kontaan ça me ça ça m'émeut quoi ça me ça me les larmes parce que c'était très difficile mais ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax yéen hôpitaux yi ak médecins yi ñëpp vraiment ak képp ku ci def dooleem ak xam-xamam ñu ngi leen di ñaanal vraiment ñu jëm ci kanam waaw santé yokku yokku bu baax a baax baax Sénégal waaw kay amuñu seen fay merci de nous avoir aussi merci de nous avoir reçu vraiment seen seen accueil bi kontaan nañ ci. dëgg yàlla merci aussi may wax aussi je suis de moom Seck waaw. je suis la waaw je suis de Momi Seck. ne xam na ne bu ñu fi bàyyeekoo yàggul. amagul sax trois semaines. waaw bu nekkoon suñu mag bu baax. ku ne xam na ni feebar bi moo ko fi jëlee. di wax jigéen tamit ñu gën a ñu gën a ñaaxaat daal gën a fagalu gën di seetlu sa seen bopp. may rendre hommage sama grande sœur Momi Seck bu baax. merci beaucoup. jërëjëf am ci rafet na yoon teg tuuti ci li nga wax ndaxte euh, li nga wax firnde la fii ñi nga xamante ne dañuy am dañuy encore wax am sikki sàkk ci ne cancer kenn mënu ko faj yow danga waroon dem ci télé bi fii comme leeral la nekk nga toog foo wax lii nga wax fi wax tey parce que dina yaay ñu bari waaw dina yaay ñu bëri ndaxte ñu voilà ñu ci bëri dañuy yaakaar ne bu ñu la nee cancer rek mooy gasal nañ la bàmmeel déedéet feebar la boo xamante ne mën na wér ci kaw ñu teel ko gis ku ñu fi teel a gis danañ la faj fii ci suñu réew ak li ñuy am matuwaay yi ñu am ba nga wér dellu ci sa sago incha allahu loolu dafa am solo ñu ñu xamee ko noonu moo tax toog naan moom la am du moom daal jógal ñu dem seeti la ca ba muy teel loolu fagaru la te wolof yi nee nañ fagaru moo gën faju bu ko defee xam naa yaakaar jot yombul euh, ñu di leen baamtuwaat suñuy euh, suñuy euh, jaajëf di wax ne nag médecin chef mu leen di remercier bu baax a baax a baax a baax da ngeen fekk mu am benn rendez-vous feneen moo tax mënu ko woon fekkee waaye doon noonu nekk mbégte ci moom jigéen la ni yéen jigéen joo xamante ne moo njëkk a nekk général fii ci Sénégal ah ngeen dolli ko ñaan ba mu hôpital bi mu yóbbu ko ci kanama ak kanam ak kanam naa ñun ñëpp ci euh, gis suñu bopp su boobaa jërë ngeen jëf wasalaam. am beaucoup. ami internet Dakar Buzz Univers Info euh, Dakar Plus ak euh, Bipro Média maa ngi leen di nuyu war bu baax a baax comme ni ñu ko defee rek ak Mbayang noonu lañ koy defee ak ki nga xamante ni. vraiment moom moo organisé événement bi nga xamante ni moom la ñu àndoon ak moom depuis ci suba euh, à travers les images di ngeen ko gis ci PC yi muy euh, suñu sista Bamba Bamba bu Waali euh, traiteur bu mag bi donc ñu ngi koy nuyu bu baax di ko bàyyi mu nuyoo ngeen bokk internet news soog dugg ak moom ci li nga xamante ni moom mooy activité bi mu doon piloté depuis lors Bamba maa ngi lay nuyu bu baax di la bàyyi nga nuyu mbokk internet. asalaamaaleykum maa ngi nuyu yéen <laughs> di nuyu mbokk internet bi teew je me présente c'est Bamba Camara ñu gën maa xam ci Donna Baldé tour de famille ma nekkoon actrice euh, tour de famille mais ñu ma gën a xam ne ci Donna Baldé moo tax gars yi gën maa xam mais c'est Bamba Wali waaw merci merci ci invitation bi. ñëw ci événement bi nga xamante ni moom nga doon organiser fële ci hôpital principal tombeek octobre rose euh, comment l'idée est venue. waaw dañoo nekk ci événement. ma jiite mouvement Bamba Bamba Events ñu nekk ci benn événement mu jiite ay mbooloo yu bari macha allah mais nag pourquoi pas avant ñuy dugg ci événement bi ma jël benn don jox ko ñu ci octobre rose bu ne octobre rose mu xel dem ci jigéen yi cancer bi dëkk bi métti na nit ñi bugg nañu fay yoruñu maanaam ñu jigéen ñëpp ñu mànkoo demoon tey hôpital principal yóbbu don bi euh, vraiment kontaan naa. te di ñaaxaat jigéen ñi bu baax nañuy gën a farlu di gën a dem di seet seen bopp loo sentir sa yaram rek dama seet sa bopp moo gën lay toog ba muy trop tard. Mhm. mu nekk bu am solo ndax gis nañ image yi fële ca hôpital principal mu nekk ay image yu daw yaram ko ko gis aussi xam ni social bi ngeen def am na solo mais da nga fa def discours boo xamante ni suñu yaram dafa daw mhm. ci sa sœur euh, sa xarit muy moom yi koy ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko aljana aussi nga ne sa sœur la woon sa xarit la woon est-ce que man nuy ñëwlaat ci moom mi nga xamante ne aussi feebar bi moo yóbbu damay jaale faramarin yëpp jaale wàkk waaw mu tax bu defee don yi ñu eggee hôpital principal ma rendre sama mag di ko ñaanal fi mu nekk gën fi mu jógee di jaale di ko jaale waa Kër yëpp di wax nag octobre rose bu ñu ko waxee maanaam daanaka jigéen ñëpp war a farlu baat bu baax te ñuy ñaan yàlla gën ñoo may kàttan gën ñoo kàttalan ba képp lépp lu dal lu waaye rek mën a faju ci ni mu gënee yombee ñuy faju fii ci dëkk bi bañ déplacé wu dem fenn waaw te tey gis nañ tey bu ñu demee gars yi lu ñu wax daan ci gën a taxaw incha allah rabbi incha allah nañ moyens yi ngeen indi hôpital bari na macha allah ci ay matériel mm. euh, loolu budget bi ci ñaata la toll Bamba daanaka dañoo dem ak suñu yéene rek ñaan yàlla bu diwanee incha allah rabbi ñu def lu lu gën a kawe loolu euh, d'ailleurs dama organiser vente privée yàlla def ni ma demoon seeti Mamadou Niatta Saay pare ni ko bis bi mu ni ma loo gën a bëgg mu ne ko maanaam boo ma woowee ci social daal maanaam danga may am ndax ñun ay jeunes acteurs ku ku xam acteur actrices yi social nañ leen xamee moo taxoon nag bu ma demee ci mu def ko parent moom it mu jël doom boobu jébbal ma ko ni ma kon jox naa la ko nga xool hôpital bu la neex ma tànn hôpital principal bu ñu nee hôpital principal daanaka euh, na nañu hôpital yëpp hmm. waaw c'était ça. Mhm. banque bi ñu ñëw ci parce que gis nañ si seen euh, tenue yi ngeen sol le hmm. le 12 le 11 ak le 12 lañ ci gis mën nga ñëwal ci banque privée bi comment ça euh, bi dama ko def pour jàppale bépp jigéen bu yor bagage ci biir këram d'ailleurs ñiy voyager bari na ñi yor bagage teg ko seen kër gis ku ko jaay te ku gis ni internet bi jaay yi bari na te ñu bari dañoo bëgg fésal seen jaay. moo tax tey ma def ko di woo bépp jigéen bu am looy jaay nga ko fesal nit ñi xam la ñu ñëw jënd stand déjà li si des bëreetul stand yi déjà li si te bi mooy première édition te am nañ ci rafet nañ ci njot te gëm nañ ni incha allah dina baax moo taxoon nag ma jël euh, événement bi def ko sargal jigéen maanaam képp kuy jigéen maa ngi la ci woo mais surtout góor yi tamit ñu génn ñëw doole seen jigéen yi daanaka stand bu ñëw bu stand boo ñëw boo fa jëndee benn 2000 francs jàppale nga kiy jaay waaw moo tax ma jël euh, événement bi daf ko sargal jigéen di ci sargal sama sama jabar sama xarit sama confident muy madame Seck soxna Aydara di ko ci sargal di ci sargal aussi sama jumelle Zahra Mbow Zahra bu Cheikhou Kouyaté l'international di ko ci nekk ñaaño ba daanaka suñu nee sargal jigéen du jigéen buy buy jënd ay bagages di jaay wala jigéen buy liggéey daanaka jigéen bu toog ci këram sax du nga ko war a sargal waaw ku nekk xam nañu soxna Aydara elle est très effacée waaw ku nekk xam nañu Zahra aussi dafa effacé wu mais ñu nekk ay jigéenu jàmbaar jigéen yu baax jigéen yu yéene ñoo xamante ne te daanaka Sénégal boo booy wax aawa foo nga tudd leen c'est ça moo tax ma sargal leen ci ñu nekk samay xarit nekk samay samay mag samay convitant ñu tamit ñu yéene ma loolu ba tax nag vente privée bi 11 12 novembre si plaza maa ngi ci woo ñëpp 9h euh, matin lay commencé ba 22h incha allah rabbi waaye dañoo gis Mbathio moom Mbathio da nee na wowul benn géwél yow da ngay woo géwël wala géwël yu ñëw. te ñoo génn ci débat boobu. géwël yi géwël yi bàmba nee bu leen ñëw. non te ñoo génn ci débat boobu xam nga daanaka boo boo nee bàmba waal yi ñun foromaareen noonu ñu dañoo bëgg bur bi daanaka ñu dañoo bëri cas. foromaareen dañoo bëri cas bëgg bur bi ku xam ne sama patron sama mag daa bëri cas bëgg bi daanaka su ma nee maanaam bongo du ñëw ak loolu maanaam liggéey bi la liggéey bi ñu koy defaree ñoom ñoo bëggul bongo. tey ku ci mel ne tey Babacar Bongo moom mooy sunu moom mooy sunu bongo man mais moom mën na solu ba jekk ñëw xumbal foofu wax sans bongo waaw bien sûr mais géwél yi ak ñun ñoo dëkk mun ñoo ñàkk ci ñoom ñu te mun ñoo ñàkk ci ñoom de waaw loolu la vente bi daal da woon naa ci ñëpp xeet bu ne woon naa ci vente bi ndax vente bi vente ñëpp la góor ñi nag damay hésité ba ci góor ñi ndax góor ñi bu ñu ñëwee jàppale jigéen ñi surtout saagal jigéen loolu moom vraiment dama ciy kontaan. <laughs> incha allah tey nag ma tey tey fi ñu toog nii tey c'est chez nous en fait. Ndoulle Camara oui Sarita Koeken. sonnoo leen de. <laughs> mooy Sarita quand on dit Sarita Koeken daanaka lépp loo bëgg rek boo amee liggéey baa nga am rendez-vous ak lépp loo am rek c'est en face c'est en face euh, Yorolam. en face euh, en face immeuble Yorolam. fi ñu jaayee ko si en face euh, lépp loo bëgg rek incha allah boo fi ñëwee dañ la ko defal muy réunion ak lépp loo mënti def.